Barcelone mu noyyiwaat bu baax a baax ma waxoon leen ko tey suba di leen xamal ni daanaka ragal bu ticceeku bu nekk ci aw yoon yoonam daanaka kum ca fekk dalay falaxe jaar ci sa kaw jàll loolee la ñu gis ci match bi nga xam ne xetax ba doon yël bu fële ca Espagne xetax boobee goney Barcelone yu burum lu nan ba mucc ca mucc ngeen ci li nga xam ne mooy ñàkk xam information yu te wóor yéen a ngi ci Aladji Malick TV moom sax moo ne ci kàddu gi ñu gërëm leen sant leen sàkku ci yéen abonnement yi yow mi ko def ba pare cant ngërëm ñeel na la yow mi ko defagul bëgg information yu wérte wóor ba mas ñu dem ñu commencé kook Sao i gaayam bi euh, yoo xam ne yu baree bari na noo jàpp ni sax na ci ñeenti bit Rafinha moo a ubbi li nga xam ne mooy kër gi ndax daanaka wërsëg la gone gi feese ba mu ubbee kër gi ci ñaar fukki minute fala mbir mi commencé nag problème mi commencé am cinquante troisième minute maanaam juróom fukki minute ak ñett tamit ñu football ko kii di Sao di attaquant boo xam ni ab portugais la moom it wane boppam ci match boobee ñu ni 2-0 loolee tamit daanaka ñu dox tuuti Dayong Franck moom it ñëw ci juróom benn fukki minute ak benn rajaxe kër gi waaye Fermin nag daanaka moom moomee moo ub langue gi rajaxe kaas yi gars yi raxas ko bu subaa jàmm moo dugal bit boo xam ne daanaka mooy but bu mujj mujjantal gi juróom ñeent fukki minute yoo xam ne toftal nañ ca benn loolee tamit nekk am solo nekk démonstration de force boo xam ni safi ak i gaayam coppati nañ ko mu nekk mbégte ci koo xam ni ab katalan nga

baax beneen information buñ ci am danañ leen ko wàcceel